ablay wad benn bis waxtaan nanu maak mom mu gaayi ni nga sukke ni nga ramé badjo tubarkal man ko yonu ya ci mu jaram yonu cheikh rafal ram cheikh ibrahim raam sëñ manumbe ram cheikh masamba raam président yaa mujj raam mbaxaan saxal ci kalam na man tum dur ci table je ni kel war mu ma fen tapu gi ni la xamal fekk seigne bamba daru man ram ablay wad ram ma ki ñew ram ku ñewati da ngay Ablaye Wade Ablaye Wade benn bis wax